asalaamaaleykum wa maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare bu baax ngir jëmmi yàlla ak yonent bi Sëñ Tuubaa ak Alaaji Fallu Mbakke li ma ci so sànni nag ci ay wax maa ngi koy tuub <coughs> ci sama sëriñ bu mag bi warul ma a wax yenn kàddu te dugaluma ko dugaluma ko waaye dama xam ne lu baax du ko bañ a dégg du ko bañ a du ko bañ a gis ma di leen xamal ne coow yi bari na ci jamono ji waaye ñiy soow ñu ci bare bare bari toog na ma ak ñoom fii ci bari ñëw nañu fi fekk ci ma fi waaye gis naa ci ñoom mbaax yoo xam ne du mbaaxu bëgg ma nax mbaaxu gu gu gu yàlla def la ci ñoom mu nekk seen biir ma xam ko ndax ma it xam nit ci diir bu néew yàlla may na ma ko waaye xam naa ne coow yi ñuy soow te muy tàng bokk luñ bëgg rek te ku nekk bëgg cee jot moo tax waaye xam naa ne du bon ci ñoom ba tax na xam naa ne ni ma leen gisee seenu mbaax buñ bokkoon toog waxtaan danañ déggoo kenn ku nekk teg bëgg-bëggam fee te génne mbaax gi yàlla def ci moom <coughs> moom ñu ko defoon danañ déggoo man xam naa loolu baax gi may wax ci ñoom nag <coughs> lu wér la te gone yi yëngatu ci ci ñoom gone yi ci bare bare bari fu ma dem rek te fekk leen fa dañ may sargal bu ma jaaree ci mbedd mi sax dañ may sargal ñu ci bari dañuy ñëw fii ci man di fi xëy damay nekk ak ñoom di xëy di nekk ak ñoom ba jant so waaye ñoom ñëpp loolu xam naa li tax ñu di ko def baax rek a tax ñu di ko def moo tax xam naa ni naqari wu ñoo jaarale ci yoon bu ko defee nag nañ bo nañ fexe ba toog rek ba ci président bi sax siyaare yi dinaa ko pale waaye moom it mbaax rek laa gis ci moom ni ma ko gisee ci ñenn ñi ci des noonu laa ko gisee ci moom ku baax la moo tax mboolem baat bu ñu wax tem tàng rek wut li ñu li li li wut li ñu bëgg rek a tax waaye nit ñu baax lañ maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen jéggalu bu a baax a baax wax ji ma wax nag mboolem waa kër Sëñ Tuubaa <coughs> yi nga xam ne ñoo fi nekk waxuma ñu mag ñi de waaye ñi nga xam ne maa leen mag sax bu bu ñu waxoon it lu raw lii ma wax rek la ñuy wax ndax mbaax googu moo nekk ñoom sëñ loolu la Sëñ Tuubaa yàlla ak yonent bi ak Sëñ Tuubaa def ci ñoom ba tax na maa ngi leen di waxaaleel xam ne bu ñu waxoon danañ wax fuuf looloo li ma wax jërë ngeen jëf yàlla na yàlla dolli jàmm dolli xéewal li ñu ragal yàlla bu ñu ko gis li ñu bëgg lépp yal na ko yàlla xëccal maa ngi tuubaat tey jé dellu di tuubaat tey jégaluwaat baax baax.